بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> والصلاة والسلام على أسلف القلق سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كم من أقائدي وكم من فقهي مع التصوف ورق النبحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barakatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yi جتاي بني لا عندك ينتي أدر بتي وقتوي لا تي عندك بين برام خم خم أي تي عندك لين يومون بقدر في تعريف تي خملة تي عندك برام خم خمي معنى تصوف الاستلاحية أه تعريف بي عندك عندك أستاذ محمد كما تشوتي لخوي أك يبرى بريتي أي nuñ koy làkkantale ak jubluwaay ba waaye tey ñu bëgg a indi nag beneen bi nga xam ne mooy al bi ci njàngaleem boroom xam-xam yi ñu ngi leen nuyu rek di ci gëj gi ñu gëj a ànd ak yéen ci jotaay bi ndax buñ ko doon xam ne dañuy wax ni euh, xam-xamu sariya la boo xam ni ci lislaam la bokk ilmun min ulumi shariati al xaadisa fi lislaam وأصله أن تاريخ هؤلاء القوم مستمدة من صلف ومن سبقهم من الصحابة وتابعين وتتلخص في العكوف في العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن السخر في الدنيا وصينتها وزؤد فيما يقبل عليه الناس من لفة ومال وجاه Euh, boroom xam-xam yi dañuy wax ni xam la bu bokk ci sharia nekk ci biir lislaam cosaanam nag mooy nit ñoo xam ni dañuy sukkandiku ci salafu saalix te mooy leen jiitu tàmbale ko ci sahabatul kiram te ci taabiina yi mu doon ñoo xam ni dañuy <clears throat> dañuy tënku ci ak jaamu yàlla waaye dog lépp loo xam ne du yàlla jokk ci yàlla subhaanahu wa jàkkaarloo ak jàmmaarloo taarub àdduna ak am koomam ñu dëdd ko di ci jël luñ ca mën a jaamoo yàlla waaye nag won ginnaaw lépp lu dul yàlla won ginnaaw lépp luy bànneex bu mën a dox seen duggante ak loolu ak alal ak daraja am na ñoo xam ni noonu lañ wax ni loolu moom mooy tasawuf mu mel ni bu ñu indee waxi borom xam-xam yu baree baree baree bari bu ñu indee waxi borom xam-xam yu baree bare baree bari kon dañuy wax ni léegi daal waxi borom xam-xam yépp ba ci senegal gii li ñu wax ñoo bokk benn wax bi. muskila bi kon fi mu nekk mooy ñi koy dund léegi ñoom ñoo ko dundatul cent pour cent waaye ñi ko jàngale woon daa ko dund. ñi bind si ñoom ñi ci ëpp ñëpp li ñu wax loolu moom mooy alxuraan loolu moom mooy sunna am nañu am gisin boobu waaye lii di coow li mooy ñi am gisinub tasuuf bokk ci lislaam eh, axadu tasuuf ay yéefar lañu ay sindiix lañu ay musrikuuna lañu ay mubtadi'oona lañu yooyu moo indi coow li ndax coow loolu dañ koy topp ba mu sàrdeelnu ndax dañuy topp coow loolu ba mu sàrdeelnu déedéet déedéet dinañ leeral ñi nga xam ne ñi ngi koy dund te buñ leen bàyyee ak <clears throat> gaa yi saboote tasawuf dinañ mujj fàq dem ci ñoom te tasawuf fekk lu baax la loolu moo tax gaa yi di jàmmarloo ñoom it di indi ay jàngale njàngaleem <clears throat> boroom xam-xam ci lislaam yooyu moo tax saa su ne muy fàttali li nga xam ni moom la boroom xam-xam di jàngale alaa kulli xaalin Euh, <clears throat> tasawuf ci bappam am na ay taarif yu bari yu wuute yoo xam ni euh, boroom xam-xam yi wax nañ ko yépp ngir leeral ku mel ne Ahmad Saruux daa wax ni euh, moom dafa limité wax tasawuf ni mu firi ko ci ay anam yoo xam ni bokkuñ waaye nee nit ñi nga xam ne wax nañ lu jëm ci tasawuf tudd ko ay def ko defal ko ay taarif yu bare bari yoo xam ne ay junniy junni la suñ tubaab mi ngi koy tudd ci masaalik mu ni liñ xam ci ni ñu koy wooye ëpp na junni waaye nee na bari ga amul njariñ la ca am njëriñ mooy dëgg-dëgg xamle lan mooy jubluwaay ba nga def ko waaye moom dafa wax ni laqad xadda tasawufu wa fasara bi wujuhin tablahu na wa alfayni ترجع كلها لصدق التوجه إلى الله ومن هذه الأقوال أن تصوف هو عبارة عن قصد طريق طائفة مخصوصة سموه بالصوفية يتلبس بها فقيل فيه إنه من باب تفاعل إسا دخل في الفعل موخني آه، وخنا لا أي خمت يبرئ yu wuute ñii ni cafkala gu nit ki mus ñii ay axwaal ay melokaan la yu nit ki di mel waaye lépp ñi ngi ci jublu d'accord nañ ci ni mooy fexe ba dëggu ci jublu gi nga jublu ci sa boroom subhaanahu wa jëm gi nga jëm ci sa boroom ak won gi nga won ginnaaw lu dul sa boroom lu nekk nga gis ca màggu borom bi subhanahu wa taala loolu nee na ñoom ñëpp d' accord nañ ci ni moom moo tax tasawuf jóg ku ñu wax abdul wahab assaalaani moom dafa wax ni an ilmi التصوف عبارة عن علم عن علم انخضح في قلوب الأولياء حين اشتنارت بالعمل بالكتاب والسنة dafa wax ni tasawuf daal ibaar la yoo xam ni xam-xam la boo xam ni euh, day defar xolub gaay yàlla yi ba mujj ñuy leeraloo ci seen jëf yi ci alquran ak sunna waaw xulub al awliya yi xiina istanarat bil amali bil kitaabi wa sunna waaw kon yoon la woo xam ne boo ci jaaree da bokk ci awliya ullahi te ñooña nee na seen jëf yépp làmp bi koy leeral mooy alkitaab wa sunna loolu ngay tënk ci waxu Abdul Wahab Ash-Sha'rani bu dee Abu Usman Saïd ibn Ismaïl moom dafa wax ni at-tasawufu suxbatun ma allahi bi usnil adabi dañu daal moom tasawuf daal yow dangay def yàlla muy sa àndandoo waaye ci ay teggin yu rafet yi yell ci sa borom Euh, am na fu Cheikh amul Bamba di wax ni wa taxisi uh, uh, itaxisi laa jàlla saahiban watrukil wara kulluhum jaaniban na nga def yàlla muy sa àndandoo mbindeef yépp nga woon leen ginnaaw loolu nag ay pexe la ko nit di defe waaye xikma la ko nit di defe mooy mënoo nekk ci suuf te doo wax ak nit ñi doo jëflante ak nit ñi waaye li may jëflante ak Euh, oustaz xalifa mbuub lu ca sotti dama jàpp ni yàlla moo ko dogal lu ca sottiwul ma jàpp ni yàlla moo ko dogal waaye bu ma ca xarab xalifa euh, bu boobaa ci misaal su ma deman soxla ci moom lu ma jàpp ni man na ko faj faju ko te muy sama waay bu ma ko ca mere bopp mu ni wa dawaami wa dawaamul xaybati wal muraqabati waaye wa subatu maa rasul bi itibaa'i sunnatihi waaye wala huwa musaa'irul ilmi kon xaaj bu njëkk bi mooy ànd ak yàlla ci teggin yi yell ci sax am caractère am fuglu di contrôler foo toll ci sa diggante ak sa borom waaye nga ànd ci ak sunna si yonente bi ci topp ko ci saa'ir ci xam-xamu bi nga amul luñ ciy tawilaat bu ñu demee ci abu mohamed al jarir yi dafa wax ni moom atasawufu ad duxulu fi kulli xalqin sunniyin wal xuruju min kulli xalqin daniyin nee tasawuf daal moom mooy nee daal tasawuf daal mooy da fexe ba génn ci wala boog dugg ci bépp jikko boo xam ni jikko la bu waa ahlu sunna yore waaye wal xuruj min kun xuluxin daniyin waaye nga génn ci bépp jikko boo xam ni jikko bu yées la waaw a tasawufu a duxoolu fi su xuluxin sunni yi wal xuruj min kulli xuluxin daniyin moom loolu la wax أبو مديان موم لا وخني ليس تصوف بتسييد الأحكام ولا بتدريج الأقدام وإنما تصوف بسلامة الصدور وسقاوة النفوس والاقتداء بالمنسل والعمل بالمرسل أبو مديان لا وخني موم تصوف دال نينا دو آه du indi say àttey bopp di gën a progrès ci sa jëm ca kanam waaye tasawuf dëgg-dëgg mooy bi salaamati sudur mooy sab xol day set wécc wa sa xawati nufuus sa bakkan day tabe ci jaamu yàlla tabe ci euh, mucc ci ak nay kon foog nga defal ko taskiya waaye ngay roy nag ci alquran waaye ngay jëfe sunna wal iqtidaau bil munsil wala amalu bil mursil gis nga ko kon wax yu bare bare yoo xam ni wax nañ ko di def taarif ci tasawuf waaye Junayd al Baxdaadi lam ca wax rek moom mi nga xam ni euh, mi ngi génn àdduna ci deux cent quatre vingt bu ñu juumul ba mu waxee ni atasawufu tasfiyatul an موافقة البرية ومفارقة الأخلاق الطبيعية وإخمال الصفات البصرية ومجادبة دواعي نفسانية ومنافلة الصفات روحانية وتعلق بالعلوم الحقيقية واستعمال ما هو أضل على الأبدية ونفع لجميع الأمة والوفاه لله تعالى على حقيقة وإتباع الرسول fi sariati moom wax na wax jooju wax ji bokk na ci wax ji nga xëy boroom xam-xam nii dañoo wax ni wa min ablaqi aqwaali lati qiilat fi taarifi tasawuf waxu imam junne gid yii ñu bari d'accord nañu ni bokk na ñi gën a jotool tasawuf ci tënkam bi ndax wax ji wax ni tasawuf mooy tasfiyatul qalb nga seetal sa xol ba mën a dëppoog mbindeef yépp waaye wa mufaariqatil axlaaqi tibiiya nga fexe ba tàqalikoog jikko ji nga xam ni wax dëgg yàlla bokkul ci fitra natiiru nit la nga xam ni euh, du jikko joo xam ni jikko ju suñu boroom gërëm la waaye na nga gëmm nag nga set ci euh, melokaan woo xam ni moom it du melokaan wu ñu tànn nga fexe ba wér ci euh, bakkan ay tilim tilimam yépp nga fexe yow ba faj ci sa bopp nga fexe ba amal sa bopp jikko yi nga xam ne moom la ruux nit yellool wa munafilatu sifaatu ruuxaniya waaw waaye nga fexe nag ba Euh, aj sa bopp dugal sa bopp nag ci dëgg-dëgg bi ulumil aqiqiyati ci xam nag xam-xamu saa'ir ak xam-xamu baatin xam nga am na fu suñ tubaay jàngalee ci euh, ku jàpp sariya bàyyi aqiqa ak ki jàpp aqiqa bàyyi sariya waaye ki ñu war a topp ak ki ñu neew ca yoonu mooy ki boole ñaar yépp yéen ki bàyyi aqiqa topp sharia ñu ne kooko sindiix la waaye ki topp aqiqa bàyyi sharia kooko faasix la ci atte borom xam-xam yi waaw nee na wa isticmaalu ma huwa adallu ala al abadiya wa nusu li jamii al umma wal wafaau lillahi taala loolu nag moo di gën a gën a gën a jafe waaw looy jëf mu am ay tegtal nga fexe ba Euh, nooy sa der bi nga bàyyi kook nit ñi diine nafsi ala ngay laay biire nit ñi wala su li jamil umma waaye wala faaw nga am nag euh, engagement yi nga jël kóllëre gi sa diggante sa borom li tax sa borom bind la indi la fi ak lan wa itibaau rasuli fi sari'a waaye nag ngay nga ngay jaamu yàlla ci sari'a waaye ci ñu ko yonent bi jàngale maanaam tënkam boobu bokk na ci tënk yi nga xam ni définition bu am solo la waaw am na ku ñuy wax si nuunin al misri yi moom defe naa moo bokk ci ñi jóge ci deux cent quarante cinq hijriya moom it nekkoon suufi bu mag moom ay ay ay waxam lay gàtt léeg-léeg nee na as-suufi yu allasi laa yataabuhu talabun wala yusijuhu salabun nee na soofi bi daal moom mooy ci nga xam ni day nekk taalib di sàkku ci digganteem ak boroomam waaye nee na sàkku googu mu koy sàkku du ko sonal mukk mukk du tàyyi waaye xañ guñ koy xañ la muy sàkku wóor gum ko wóor ñàkk woon ni ko amagu ko du découragé bopp laa yusiduhu salab abu hamid al xasaali moom nee na euh, def na moom it benn taarif boo xam ni euh, taf taarifan jaamian lañ koy wax ndax wax na ni asuufi yu mooy ki nga xam ni <clears throat> la yasaalu yasfi al awqaat an shawbil aqdaar du lañ nee na mooy ki nga xam ne du lañ mukk mukk waxtoom yépp da koy setal da koy sellal da koy sellal mooy lu ci lu yàlla waxtum yépp nee na du ko du ko du ko naxal bi tasfiyatul xulub an saw bi nufuus ci setal xolam laabal xolam rek ba bakkan du ko rax saw bi nufuus nga bakkan moom mooy noonu bi gën a jige nit te gën a dangereux yuinuhu ala kulli hasi tasfiyati لوام افتقاري الى مولاه دتي mu ديمبلي dimbali موي سونال بوبام كي ملكان يي nga xamni moy setal xol bi ci sax ci di yitté wo boromam ci sax ci yitté wo boromam gogu nak neena mo koy seetal ci ndax-ndax yi waaw fa bi dawamil iftiqari yanqi min al qadar kon sa yu bakkan yëngutoo bëgg def aw maninan rek nee na am na leneen luy dimbi ay bi bakkan yooyu ba bakkan du mën indi dara loo xëy day xajamal melokaan yu sell yooyu basiram day mujj nag mën a dem nag di gën a jige boromam ndax lan fa bi dawaami tasfiyatihi jamciyatihi wa bi xarakati nafsihi yooyu yépp mooy dem ba tàqale koog ay nax-nax bu boobaa nag fa bi xaa'imun bi rabbihi ala xalbihi boroomam rek lay yëg ci xolam boroom dong lay gis ci basiiraan waa qaa'imun bi qalbihi ala nafsihi ko defee bu boobaa nag muy jaamu boroomam day bu gisul boroomam ci bëtit xam na ne boroomam mi ngi koy gis loolu bokk na ci ñenn ci yenn boroom xam-xam yi ci ay taarif yoo xam ni dañ koy wax jëmale ko ci tasawuf yii yëpp ba su ma ñëwoon fii waxtaan ci Seydi Alaaji Maalik lu mu wax ni mooy tasawuf Cheikh Ahmadou Bamba lu mu wax ni mooy tasawuf ak ñeneen ñi ci bind ndax am na ñu bind ci tasawuf ku ni Cheikh Alaaji Ibrahima Niass ak euh, maam Khalifa Niass ñu bari bari bind ci waaye benn maanaa bi la donte jumla yi ak waxin wa mën naa bañ a bokk waaye jubluwaay yëpp jubluwaay la kon am na lu xew am na lu xew ginnaaw majorité bi yëpp seeni taalibe lañu waaye ngay gis ci seen biir yoo xam ni ñi ñi ngi koy def tudde ko tudde ko ak jaamu yàlla te bokk ci kon mbokk yi loolu nu war a xam nag ni kon loola lu bees la ci diine ji lu bees la ci biir tarixa yi Cheikh Ahmadou Cheikh Ahmadou Rafahi moom mi nga xam ni moom def naa moom bokk na ci ñu xaw a mujj ñi ndax moom mi ngi génn àdduna ci 578 hijriya nekkoon suufi mooy mu wax ni as-suufi huwa man wafa jamia almatlubaati nee na suufi yi daal moom mooy ki nga xam ni mbooleem li suñ boroom sàkku ci moom masal na ko أنا لي ساكتي أبجام وصف من جميع القدرات أي مسات في مولم لب لوي تلم تلم لوي نخ نخ ممسات نتي كما أن ابن خلدون ما لا وخني التصوف هو رعاية أصل الأدب مع الله في الأعمال الباطنة والظاهرة بالوقوف عند حدوده مغرما باستماع بالأفعال الخلوبي waaye muraqaban xafaayaaha bi dalika ala najaati moom ah, wax na wax ju am solo ci tasawuf moom it muy ibnu xaldun mooy nga sàmmoonteeg teggin yi gën a rafet yi jaadu ci diggante jaam bi ak borom bi ci sa jëfi biir ak sa jëfi biti riayatu usnul adabi ma allahi fi l amali al batinati wa dairati waaye bil wuqufi inda xuduudihi taxaw ci dayali sunu borom bi bu ko jégg mukk mukk ngay xeraw lu di diglu nag digle sunu borom yi looy jëf nga yéene ca ma nekk ci sa xol li ngay wane nga doon kuy fuglu foo mën a toll yu sew sewaan yi yu yu biire yi ne na loolu ci la ak mucc nekk loolu ci la ak bu ci nekk ku ñu wax Cheikh Ahmed al Baqlani moom dafa wax ni al Baqli dafa wax ni asufi huwa الصوفي هو من خلبه خال من الإرادات وجوارحه مستغلة بالعبادات نانا صوفي موي كو خمني xolam daal dara dara ci ay bëgg-bëgg nekku ci moom dafa bàyyee boppam ak yàlla ndax euh, loolu suñ tumaanaa isil muridu la yuridu abada gayra rida rahmaani ay suqasala moom lenn rek la bëgg moom na ko yàlla gërëm rek lu li nit aada woon a bëgg ak di ko tànnal boppam yépp moom amul amatul suwa amatul suwa daal تيرم ييب نينا سخلال جامو يالا سبحانه وتعالى واو نينا سوكو نافيت مو موت سي ليپ لو خامني اي نجوم تالا واو فنا صاحب الكرامات عبد الملك عطار مو وخان ني الصوفيو هم من طلب الحلال وصحب الرجال وكف لسانه عن المقال فتخبر عنه في الحال suufi bi daal ñooy ñi nga xam ni dañuy sàkkulu lew foo leen foo leen fekk mel ni sàcc ak jëfandikoo ribaak lu lënt ak wala jënd koog nangam nangam yépp moom da cay mucc was bu rëjaal waaye nag góor yàlla yi muy julit nit ki mën naa nekk sa àndandoo te fekkoo ko ci jamono Alaaji Maalik may boole mii may gis nii mën naa nekk àndandoo Alaaji Maalik si mën ko tudde gis nga waaye wa kaffu lifaanihi maqaal salaam nañ wii danga koy téye an kaana yumin billahi wa yawmil axir fal yaqul xayran aw liyasmut yooyu bokk na ci yi nga xam ni بغن نكو اندي تاي ان شاء الله سوكو ديفه الحافظ ابو الفرج الجوزي موم واخان ناني ген بال ما سي دغ دغ بوبو موم دا واخان ني موي ابو الفرج الجوزي لول دا واخان ني الصوفي هو من زاد في الارادات واي وترك الشهوات واي واستدرك من عمره ما فات واي واحيا منه ما مات وصان قاتله من شتاءات مينا واي بوتك ربه الى الممات دا واخني صوفي دال موي كيغا خامني دافا ددو لب لي بغ بغ ا آه، بغ لي يالا بغ سي موم واي مو باي لب لو خامني موي بانيخو موي بانيخو مو فخ با دبات dabaatal lépp lu ko faatan ci ak dundam ah, waaye mu fexe ba waajal jamono jëm nekk mu dundal ko waaye mu bàyyi xel di topp ci dee kooku day mujj nag doon ku ragal yàlla ba keroog muy faatu te day ragal yàlla neena na jëm ba keroog muy faatu waaw moom loolu la waxoon ci wàll googu cheikh abdul halim mahmoud moom it ci taarifam daa wax daa wax ni allasi yara u yajma u jawaaniba tasawuf innama huwa taariful kataami loolu jeneen wax la sax ci laaj buñ ko laajoon muy joxe xalaatam ci taarif bi nga xam ni moom la kataan yi defal moom it ci wàllu euh, tasawuf kon mën aj la boo xam ni moom wax ji suñu boroom wax ci alxuraan ni قد أفلح من سكاها فتسكية النفس هي صفاؤها وتسفيتها إنما الوصول بها إلى الصفاء والمنحج المحاولة للخرب sun borom mu wax ni bakkan ci boppam de kep ku ko selal ku ko selal neena taxena waaye wax xadd xaaba perte na man dasa ku ko dooleel nee na koko mooy ki perte te kon nag taskitu si nag mooy sellal ko ba mu set ndax ci sellal gi ñu koy sellal ba mu set ci lañuy ñuy mën a àgg ci ngërëmu yàlla subhanahu wa taala te mooy mën nag bi nga xam ni moom lañuy ñuy fexee ba jege suñu boroom ci kemtalaayu kàttanu jaam bi ndax borom bi buy wax naan yonent bi xul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillaahi rabbil aalamiin laa sharika lahu wa bi zaalika umirtu wa ana awwalul muslimiina loolu kon ah kii bàyyi na boppam ak sunu borom subhaanahu wa taala ak yëngoom ak dalam ak dundam ak faatoom xam na ne am na buur boo xam ni moom dong dong la ko mën a bàyyil mu bàyyi koog moom. mbokk yi ko ngi leen di jégalu bu baax a baax ci gàttaayu waxtaan wi dañ fee gëj rek euh, sànq ñu am jot ni nan dugg rek ñu def tuuti rek benn quinze minutes waxtaan fàttali def benn taarif ci waxi boroom xam-xam yi li wax ni moom mooy tasawuf waaye daanaka boo ko xoolee rek yépp day mën a delluwaat ci ay xadis yu wér yoo xam ni ak i ayatul quran yoo xam ni yàlla ci yoon ñi la woo jaam ñi léegi nag bu ñu demee ba jamono toll fii nga xam ni ñi ëpp ci ñi koy dunde ñi ñoom ay suufiyanke lañu dañu ko réere xamuñu ko xamuñu ko ndax dañu leen ko xamalul ah, nit ki munta xam loo xam ni jógul dem xam luñu ko ndax bu jëkk nga xam ni daanaka ah, nit ki day jóg laxasaayu laxas mooy dem ba takk soxna am na ci sunuy maam yoo xam ni def nañ ko ñu nekk lul ko suñu bàyyi sax nga bàyyi soxna si ak sa kër nga dem nga jàngi sa diine nga dem nga wuti ngërëmul yàlla subhanahu wa taala am na yépp xewi na leen léegi dem ba am soxna dem jaayante wuti alal bàmmeel bi daal doonte sori naat na nga am alal dem bay wax ni barsa mbaa barsaq kon lin wut àdduna jaral waaye wut ngir xam suñ diine dañu ko jaralatul ku jaralatul waaye ñi war a jàngale nekk ci kanam mbooloo yi nu am sens nun am ñoo xam ne ñu ci kanam mbooloo yi ba noppi bind nag bind loo xam ni lu biir la leer ni ku ci jaar ku ci nekk yaa ngi di jëfee alquran ak sunna waaye bu fekkee nag jàngoo ko ci jàngale gi mooy dafa bari ndax euh, même boo munta liirit mën ngaa jàng ndax di waxukaay yi nga xam ni se nañ mboolem eh, téere yoo xam ni mag ñi nañ ko bind jàngale ko ci wolof ak ci yeneen làkk yi nga xam ni non seulement yemuñu ci waaye bind nañ ko ba ki jàng moom it war na koo mën a jël jàng ko fokk nag nit ki xam ni lim bëgg daa am lu ko koy may ndax boo bëggee lu jëm ci wàllu sa defar sa àdduna nooy def ba am kër nooy def ba takk soxna ak noo koy yore di nga fexe ba def say pexe moo xam da ngay jàngi métier wala dangay tukki wala da ngay dugg ci wàllu commerce waaye fokk di nga def pexe ngir yor sa kër ngir takk soxna noo def ba xam sa farlul ay nii boo doonul aalim bu mën di jàngaleet nga doon koo xam ni euh, li nga war a xam lépp xam nga ko ba booy jaamu yàlla jaamu yàlla bi dina jub mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen jégg lu baax di ñaan borom defal tawfeex di siyaar ñëpp ببنن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته